tey dikk nañ fi ma ànd ak maire de maire de la ville de Dakar madame Soham El Wardini ànd ak euh, monsieur le maire de Dakar Plateau muy liggéey boo xam ne déggoon nañ ni ko président de la République buggee woon ku ne dugal ci sa loxo muy ville de Dakar muy maire Dakar Plateau mu bañ a am benn xaj ak seen ñu liggéey ko liggéey boo xam population yi ak commerçant yi ñoo ko moom seen njëriñ la. loolu nag tax na ba tey commerçant yi seetlu ngeen ne depuis 2018 mille dix la leen ko président digoon ñoom ñoo ñëwoon seet si président de la République ne ko dañu bëgg ñu defaral ñu marché Sandaga. président ne leen nag omelette ku koy defar faaw nga toj ay nen looloo tax cantine yi nga xam ne ñoo wër bâtiment bi war nañ ko dindi ba pare nag jublu ci bâtiment bi nga xam ne mooy bâtiment historique bi looloo tax ñu jël ci njëlbeen site de recasement man si boppam bi ma fi ñëwee daaw gisoon naa ne fi ñu leen bëggoon recaser doyul woon melul woon na mu war a mel état jël ci alalam tabax ay cantines yu mucc ay yóbbu leen fa loolu nag li muy wane rek mooy état président de la république am na yéene ñu defar marché yëpp ndakaaru rek liñ fi am ci région de Dakar ëpp na juróom-ñett fuk ak juróom-benn ci ay marché 86 waxatuma nak Sénégal donc programme Bobu, dañu wara a marché yi yees dëppook jamono walu sakku sécurité salubrité lepp ñu respecté ko tabax ko ni mu waré looloo tax nak ñu ciy wo secteur privé ñi ko xamné bëgg nañ jël ay marché défar ko fi état mo koy défar ci alalu bopam and ak commune ak collectivité, yi du dëgg collectivité yi def ci sen alal bu ko défé ñu mëna défar marché yi mu dëppook na mu mel population yi jëriñu ci donc Lolo waral liggéey bi liggéey bi normalement war na durer ñaar fukki weer ak ñeent loolu lañ ci jàpp euh, dinañ leen jox détails yi ci war euh, ma ànd ak ville de Dakar ànd ak commune de Dakar pardon monsieur le ministre Aliou Ndoye ñu ànd bu ko def liggéey bu sell di jaajëfal commerçant yi ndaxte waxtaan bi yàgg na waaye nag keroog le 3 juillet bi ñu waxtaaneek ñoom lañ ñu wax def nañ ko ba su tabaski bi ñu fi ñëwee di dindi courant bi gis nañ ne ñu bëri dindi woon nañ seen bagage ba démb rek ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom. jëloon nañ seen ay caabi bari yobu seen bagage tay tamit am ñu yeggali donc tay fekkatuñ fi kenn non lañ ko euh, bëgg défé ci jamm ak salam bu ko défé ñëpp mëna jall ça ne devrait pas dépasser 24 mois nous allons y travailler avec la ville le la la commune de Dakar Plateau. président de la Kermel, le, le, ministre vous l'a dit, nous allons aussi désencombrer les alentours de Kermel pour vraiment que le centre-ville soit propre, salubre et digne d'une capitale, de la capitale sénégalaise. processus la boo xam le ko ak euh, bu ngeen di taskatu euh, premier ministre Boun Abdallah Dionne à l'époque defoon na fi ben conseil interministériel autour sur les marchés sur lesquels donc l'État le chef de l'État avait dégagé une enveloppe de 70 milliards pour réhabiliter les principaux marchés au Sénégal et c'est depuis lors que ces projets sont sur la table